واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ku jóp ku ci tàggu yonent bi salaam nga teew ci sa bésu maam Seydina Limaamu alors tey lan ngay yëg ak yan kàddu ngay seede ci bés bu rëy waaw ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp euh, di sant sunu borom di jullit Seydina Mouhamed sangu-sang yi ki nga xam ne moom mooy sunu lépp rasulullah alayhi salaatu wasalaam di ñaanal bu baax a baax Cheikh Aya xalif général des xaadre yàlla yàggal ko fi ndax ay taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu lañu waaye tarixa yëpp la ñu amlanteel jàmm te ñëpp ñu bëgg moo tax rek lu xew rek ñu am ca wàll loolu waral tey ñu def ni woote la paix ñëw wuy Seydina Limaamu alayhi euh, salaam ndax nee nañ Limaamu Laahi mooy rasulullaahi alayhi salaatu wa salaam waaye lii rek wane na ni duñ ko weddi ndax nag Seydina Muhammad macha allah comme cër fa yàlla ndax yàlla moom la bëgg taggee ko ci jikko taggee ko ne ko yaa ma gënal ñëpp Seydina Limaamu ne man maay yonente maa feeñoon maaka di weex bés lu ñuul macha allah tabarakallah loolu waral tey rek ñu àndandoo en mas ñëw ci appel bi nii daal di sotle suñu mbokk Abdoulahi Thiaw Laye tey lan mooy sa euh, message ndax gis nañ la ni yaa ngi ko wax léegi islam gi mel na ni benn la euh, daanaka doo xàmmee ki bokk fii ak ki bokk fële donte ku ne xam ne ne njabooti Cheikh na Cheikh Sadim nga mu mel ni temu ren bi ci wàllu éducation lañ wax yéen ngeen di ay taggukatu yonent wi euh, alors lan ngeen gis ci wàllu woon ak loo ci mën a jàllale comme message. li ci mën a jàllale comme message rek mooy que àdduna moom lépp loo gis rek am na fa mu njëkkee. macha allah ku ci mel ni sunu maam borom Touba Sidi Hadji Malick maam Limaamu Laay Baye Niass Boukounta Ndiassane ba ci Cheikh na Cheikh Saad Bou mi nga xam ne moom la ñu yaakaar diina jëpp benn lañ koo ci dem ca këram rek boo jàppee ca branche ba ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam la jëm moo tax kon amul murit bi amul xaadir bi amul kenn ku ci woote boo ci amee wëllëre demal wuji boo ci amul wëllëre sol solul ba rafet dem wuti wuti leer macha allah fa tabarakallah doo ci jëlee lenn lu dul yiw macha allah loola waral ñun nga xam ay ambassadeur lañ ci tagg Seydina Mouhamed képp ku woote rek buñ ci amee wëllëre dañ cay dem nit ñi gis ñu xam ne amuñu xàjji ak seen ñu bëgg nag képp ku suñu soppee mbaa ngay jullit mbaa ko mën a doon nga ci ñun ndax nag réew mi toll na foo xam ne soxla na loolu ku ne mën nga ne fa nga ne waaye du tee war mën a doon benn ndax nag ragal peete day day wërsëg waaye am peete ba ñëpp xam koy day day wërsëg loolu olof wax kon nag nañu يا ما خسر الإنس والجنين رسول الله إليكم أجبار